saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa président CNG bu bees ba nu yaakaar ne moom la monsieur ministre Matar Ba di tabb sunu làmb ba mu xëyee nataalu Bira Sène fi nekkoon président CNG bu Kaolack la fësal moom Bira moom la ñu njort ne moom la ñuy def président CNG ci alxames ji moom Bira mi fi nekkoon président CNG bu Kaolack moom la ñu njort ne moo war jiite bile CNG li ni mel nag moo waral sunu làmb xëy indi ab taxaw a jëmale làmb ji waaye ñeneen ña la ñu njort mooy Bira Sène bu Alioune Sarr képp a fi nekk bu ñu fàtte ne Bira Sène mi président Alioune Sarr moo nekkoon patron ci fan yu yàggul waaye Bira Sène moomee bu ñu fàtte ne moo fi amoon problème ca CRG ba ca Kaolack ba juróom-ñetti loolee la journal ca Kaolack ba ñu bëgg a signé pétition ko officialisé du ñàkk président du de Thiès bu Maysa loolee nag lañ ca mën jàngat mooy lamb ji décentralisé nañu ko ku nar doon président CNG ñu ne Bira Sène premier vice président chargé de la lutte avec frappe ñu ne Maysa Ndiaye bu ñu waxee président CNG bu bees bi naka la fas yéene yore lamb ji war nañ caa wax président CNG bi fi jógee naka lay dundee loolee nag ña ca tontu bokk na ca Gaston Mbengue Malick Thiandoum ak Doudou Diagne Diecko bu dee Doudou Diagne Diecko la mu xamle mooy président Alioune Sarr la muy dundee bu lamb ji weesoo sama yoon nekku ca la mu fas yéene def ginnaaw lamb loolu moom la concerné bu mooy xanaa mu lijjanti mbiri clinique am Malick Thiandoum ne ca tontu ne bu ñu fàtte ne président Alioune Sarr dafa am métier bu bàyyi lamb ji day dem concentré wu ji ca métier am noonee la journal ba def moom Bira Sène daal daal di indi ab portrait wax li nekk ci moom bu nu jàllee ca Marley dañu koy fekk muy dànkaafu adversaire am ba nekkuréel moom Marley taxaw na ci ay gardam pare na te du may nekkuréel dara naka nga fas yéene disputer combat bi mu ne il ne me posera problème moom nekkuréel ñi muy teg problème man Marley bokku ma ci combat bi maa ngi koy préparé ni mu ware ñaari séance lay def par jour di entraîner entraînement yu metti ñaari defet yi ma jóge ci jën kayre ak booy bawal na ma xamaan bu baax fi ma jëm sama politique loolee na ku dul mbër mënoo ko ka bëgg a jàkkaarloog dëgg mbër yi mooy xooyantaan moom xooyantaan fi mu nekk nii moo yor cëggal guyam ngir choisir ci ñaari adversaires yi ci kan la jëm daw ki xamle li ni mel nag mooy Basirou Babou moom la mu xamle ca sunu làmb mooy Sa Thiès Garga par trois promoteurs Pape Thialis mi bëggoon taxawal bi le combat daal am na ay concurrents yu koy menacé moom buy yéex tuuti ñooñu di dal ci kawam foofu li muy sàkku cadence lu ko mooy yeneen i promoteur yi ngi ñëw te coppet li def combat ba jërë ngeen jëf mbokk yi li moo nekkoon li gën a fës ci yéene gaay bi ñu jox di daje ba ëllëg incha allah